dembu yamo ak talata fukki fan ak ñaar ci wéru juillet mu yamo itam ak bëss bi nga xamanteni njiitu réew mi Macky Sall wowoon na ñi nga xamanteni ñoo jité bokk momel yi te bokk ci coalition bu benno bokk yaakar bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi nga xamanteni modi l'observateur njiitu réew mi Macky Sall ci dajé bobu rek dal ay adduwaale ci investiture bi nga xamanteni ñi di waa Pastef na mën nañ ko amal fukki fan ak juroom ci wéru juillet bi ci ki nga xamanteni modi di njiital Pastef di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi nga xamante ni moo di l'observateur ki nga xamante ne ni moo di njiitu réew mi Macky Sall daal dinay ŋàññ bu baax yoon bi nga xamante ni ñii di waa Pastef jël nañ ko ndaxte kat bu ñu ni dañuy investir ki nga xamante ne ni moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko fekk ni kat moom daan nañ ko juróom benn weeri kaso yoo xamante ni du ko tëdd ak ñaari ati kaso yoo xamante war na ko tëdd ci affaire bi nga xamante ni moo ci digganteem ak kii di Adji Sarr kooku nag suñ ko defee ba noppi ñu daal di koy pare ngir daal di koy investir njiitu réew mi Macky Sall bi muy addu bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni moo di l'observateur yëf yi daal day mel ni loo xamante ni day nuru ay provocation